Nous avons dañ daan def consultation daara yi et ñu avons commencé depuis 2004 donc avons fait fukkeelu édition ak juróom ñuy rafetlu nag ren li ci am de particulier mooy euh, étudiants yi nga ñu université de de santé de Thiès Nous avons fait ñoom ñu ngi jeexal seen seen étude ñoo ñëw regroupé ci association bi ñu wax ZAM mooy Jigensor assistance médicale ñeu ànd ak ñun pour def consultation c'est vrai que ñu ko daan def mais c'était à titre individuel mais ren c'est association bi bopam mo jog ñeu pour jàppale ñu ci lolu dafa lo xamné vraiment c'est extrêmement important et def ñi ñuy rassurer xam ñun suñu doom ñu ngi ci ginaaw donc euh, pour relais du am problème donc lolu ñu ngi leen di gërëm di leen sante di rafetlu aussi la présence du professeur Diop qui est là qui est une autorité médicale qui est une voix autorisée nga xamné mu ngi fi teew fi je crois que mom aussi dina mëna bu yeggee ci autorité médicale yi fi né mu wax len suñu liggéey yi liñ fi def ak aussi bosé mi nga xamné am nañ ko pour que li buñ koy defat autorité médicale yi muñ ci japp parce que ñuñ koy def ay suñu dom lañ koy defal nga xamné dañ ko soxla parce que ñepp xamné ni talib yi nek euh, ci daara yi problème yi ñi jëk am moy problème de santé yow ñepp xam nañ ko donc buñ len bayé nonu aussi du sorti donc motax tax ñun man ak ak docteur ñay ñu jël suñu ala di ko ci def parce que c'est normal suñuy doom la il faut ñu ñu encadrer leen sur le plan médical di soxla nag que ça soit aussi autorité administrative yi ko autorité médicale yi ñu dugal ci seen loxo. waaw jafe-jafe bu mu fekkee mooy mutuelle di nekkul ne daara yëpp ci adhéré loolu mooy problème bi daara yi ci gën a bëri adhéré wuñu ci mutuel de santé ñu ci adhéré woon moom du am benn jafe-jafe. mais kon ma la ko waxee sànq ci français jafe-jafe bu ñu am souvent bu ñuy xarafal xale yi bu ñu leen xarafalee ba pare dañ leen di wax ñu dem ci poste de santé bi nga xam ne moo leen gën a jege. mais su souvent suñu fa demee dañ leen di wax ne déw leen si ñu leen jongal ñu faj leen te xam nga loolu xel nanguwu ko parce que quand même le service public dafa am un service social te les les talibés dañu bokk ci nga xam ne dañu new doole donc dañ leen war a dimbali. médecin chef kay chaque chaque année balaa ñuy commencé dañ koy defal note d'information que ñu ngi def ñu ngi def circoncision mais souvent malgré tout bu ñu demee ci poste de santé ñu wax ne ñun defuñu jongal bi donc ñun duñu leen seet donc loolu mooy jafe-jafe bi nga xam ne am nañ ko. te loolu je crois que ñun bu ñu ko defee en tant que privé di ko def pour un service public je crois que public bi li li ko war mooy mu continuer activité boobu donc loolu daal ñu ngi lance euh, appel ci autorité médicale yi nga xam ne ñoo fi pour que suivi boobu mun a am pour circoncision bi bi ma fiy jógee sànq y avait 70 yoo xam ne ñoo fi woon pour ñu jongal leen waa juróom-ñaar fukk mais xam nañ ne mun na am sax ñu àgg ba ci téeméer parce que am na ñoo xam ne ñëwagul ñëwagul woon parce que bu ñu prévoir ci matériel bi matériel bu ñu prévoir pour circoncision yi muy téeméeri xale waaw jangoro yi nag ci yi si gën a fës mooy xam nga problème bi ñu ne si dara mooy problème d'hygiène jangoro yëpp mooy jangoro yi nga xam ne dafa am rapport ak hygiène mooy problème bu bëñ bari na fi mooy carie dentaire problème aussi ñu wax les carences en micronutriments mooy affaire seen lekk du bari dañu anémie te loolu lu koy indi mooy xale yi duñu seen lekk am c'est pas riche en fer fer bi nga xam ne moom moom lay organisme bi soxla pour defar deret donc aussi beneen jafe-jafe bi mooy ce qu'on appelle les infections respiratoires aussi dafa xaw bari té loolu mu ko indi moy promiscuité xam nga ku soj rek ak ni ñuy tëdd ci pour mu wàll ñene ñi dafa dafay yomb waaw xat yu bëre bek moy aussi les les les infections dermatologiques donc hygiène corporelle donc yoyu bari na ci ay biir yu metti ay saan ak yoyu yoyu moy yi nga xamné moy fever yi gëna a yi nga xamné mo mo ñoy feñ ci ci ndongo daara contane trop ndax euh, yëf ci yombul ndax té fukat ak juroom ñu ngi koy def bañ koy door dañ ci wéetoon lool boobu gisuñu kenn ñun kese ñoo si newoon waaye suñu demee ba tey suñu ay doom jóg ñëw taxaw jël en charge activité bi ñun loolu day dalal suñu xel même su fekkoon dërëm yoruñ ko suñuy doom taxaw suñu wet rek loolu rek doy nañu loolu moo tax euh, Ziguinchor assistance médicale ñu leen koy di leen di remercier di leen gën a ñaax di leen encourager pour que tànk boobu jéego yooyu ñu teg ñu continuer ko di remercier également euh, Lions Club ndaxte Lions Club euh, toujours dafay jàppale askan mi di jàppale xale yi par l'intermédiaire de la ZAM ba action bi tamit def nañ ci seen loxo di kontaan tamit tey ne sunu frère sunu xarit le professeur Madoki Diop tey ñëw taxaw si parce que tam su loi di def jàmbaar da ci góor maaw góor da caa baax. kon tay ji mom présence am rek su deful dara waxul dara sax présence am rek waaw góor la ci ñun parce que autorité médicale la di suñu rak tamit di ko xamantene ci dëkk bi ñëpp xam nañu taxaway bi mu fi am ci santé taxaway bi nga xamantene am na ko ci activité ak hôpital régional gi mu ne ñuy lancer appel manam ñi ñaan ñi yalla may sen loxo jot sen ginaaw ñu jema japp may ay carnet de mutuel ci daara yi ba nga xamantene daara yépp ñe xalé yi ci ne ñep mëna am carnet de mutuel ñi ngi gis tam tay comme wa Lions Club ñi ngi fi tok ñu ngi tamit ñi ngi leen koy ñaan di leen ñaax ñomit ñu jël ay seen ay matuwaay jàppale xalé yi pour que ñu am ay carnet de mutuel ndax loolu bés bu amee consultation médicale ndax dootul soxlaati ndax te prise en charge bi fañ ko war a defee dinañ ko mën a def di remercier bu baax ñëpp ñi si jàpp di remercier presse bi parce que yéen yàgg ngeen ñu accompagner ci activité bi

bu ma jël boo xam ne nañ ko def beneen problème bi mooy sama collègue bi professeur Madoki euh, waxtaan nañ léegi incha allah semaine prochaine aussi am nañu ay carton de consommable yoo xam ne dina ko jëriñ am na je sais am na ay sérum salé am na ay bande am na ay compresse ak euh, euh, yu mel noonu y a des pansements yooyu yëpp incha allahu nañ jéem a xool nuñ la ko joxe dès la semaine prochaine te incha aussi fii fin du mois loo du yag dañu leen jox mat 50 draps pour la médecine Nous aussi tamit dañuy yëngu ci fan yu bari suñu projet bi gëna a bi nga xamné légui ñu démarré ko moy centre de traitement des brûlés té Sénégal xam nañ ne amul ben structure bo xamné day jël Ce lakk su ngeen fàttali ko sax jamono yé passé qui euh, ci waa kër président amna ñoo xamné jottu jotoon nañ fa donc fofu aussi tamit projet bi 4 milliards la ñun ñoy indi 3 milliards yi état bi moy indi 1 milliard te incha allahu euh, am na benn entreprise euh bo xamné aussi tamit jël nañ ko pour mu tabax ko ci fi nak ci ci ci euh ci euh, ci weer yi di ñëw dinañu jox efr santé bu université ak centre dixième ben appareil numérique de radiographie de dernière génération ak ben cabinet dentaire. ñi ngi jox aussi le 21 université de saint euh, deux ambulances médicalisées alxames bi di ñëw dinañ jox hôpitalu Mbour ñaari couveuse ak ben incubateur pédiatre pour leur euh, pour leur pédiatrie ensuite aussi li ñu war a fàttali mooy ren jii ñun waa Thiès dañoo décider ñun ñu gën a yëngatu ci ci mbiri jabet moo tax soo xoolee jàppale nañu ay poste de santé yu bari yu mel ne Medina Fall yu mel ne Peekup yu mel ne INEFJA université de Thiès euh, waa waa Mbour te actuellement ñu ngi toll ci dépistage yu euh, dix mille personnes la ñu la ñu tolloogul te loolu lépp dañ koy def gratuitement Et nous avons aussi matériel pour actuellement 2000 personnes donc nous ngi une structure pour nous appeler euh, gratuitement nous avons dañuy yëngatu pour jël si jot gi pour dimbali nit ñi. dara yi dinañ yu la docteur man semaine prochaine parce que nous, avons bëgg def lu quoi semaine prochaine nous toog parce que am nañ activité war te boobu yaakaar naa suñ ko defee war nañoo mën a jaar ci docteur Ndiaye aussi beneen docteur Ndiaye bi euh, ñu jàppale aussi daara yi te incha allah ne leen jàppale ci mbiru wér-gu-yaram yi donc euh, mbir yaa ngi nii ñun fépp foo xam ne mën leen faa jàppale rek incha allah dinañ fa jàppale te am na yu bari yoo xam ne aussi ne mën nañ kaa def ko lu ñu andi lu bees mooy que ni dañ ñëw fekk ko si moom si activité ñu jàpp ci moom da doon def si taalibe yi ah ñun tamit ñu xool lu nga xam ne moom amaana mënu ko mënu ko woon def ñu ñëw mottali ko lu mel ni comme supposons ñëw nañ côté ophtalmologue ah andi nañ ko euh, ñëw nañ tamit côté jabet boo jàpp si lépp pour gën a euh, jàppale askan bi waa population bi si maladie yu nga xam ne ñoom lañ gis ni ñoom ñoo fi ëpp problème actuellement nii euh, si yooyu noonu lañ nekk si loolu la ñu dox moo tax lëkkaloo bii ni nekk lëkkaloo bu am solo am tamit ñu ñu jàppale tamit si kii bi lu mel ni comme université Thiès euh, à travers responsabilité sociétale euh, nga xam ne professeur Madoki moo leen fi teewal am nañ tamit waa Lions Club euh, ak am na association muy naan Chance for All madame mademoiselle madame Fina moom moo ko dirigé lépp daal pour journée yi nii nga xam ne population carrément dina ci gis boppam. andi nañ fi tey lu tollook ñeent fukk ak juróomi nit si ñeent fukk si ñooñu noonu. am nañ ay sage-femme ay gynécologue ay ophtalmologue ay médecin généraliste ay infirmière tamit ñoom ñëpp dañ ñëw jàpp si journée bi ñu ci gën a bëri UFS santé mais tamit comme Ziguinchor assistance médicale am na ay antenne fu nekk am na ñu jigee Dakar ñoo jàpp si journée bi tamit comme am na ay pharmacien yu ñëwaale tamit li ma gën a neex si euh, daje bi tey mooy suñu jeunes yi Ziguinchor assistance médicale le nom a une signification c'est Ziguinchor mais ils sont en train de travailler à Thiès

fo xam nañ ko ci Thiès ñom ñoy def chiffre yi gëna baax di wañi étant des experts malgré leur expertise malgré sen xam-xam machallah dañuy euh, def ta yalla tax dañuy yombalal ndëg bi pour euh, wax leen euh, xeyna comprendre nañ message bi Serigne Touba waxon ni jafel ndëg baaxul jafel ndëg day xaar ni ci sukuraat ñom xamna dégg nañ wax jojju bu baax parce que ñu ngi dimbali askan bi tay ñom ñi nga xamni ay privé lañ man mi nga xamni public lañ ñi ñi nga xamni ñu ngi jàng te di waja a woné nañ ni benn intérêt lañu am mooy malade bi wér léegi ñun loolu dafa am benn euh, domaine d'activité ci biir université bu tudd responsabilité sociale léegi man moom lañ ma dénk euh, ci biir UFR santé bi léegi nag il faut ñu wane Thiès ni université bi fi nekk amal na njëriñ population bi te bépp activité bu ñu mën a def euh, comme maa ngi profité pour wax ni tam ñu ngi am ay jéego yu ñuy dox pour rendre service ñu nekk ci ñi nga xam ne yoon daf leen teg loxo waa maison d'arrêt yi te bu boobaa xam naa ñoom bu ñu leen sollicité ñu ci jàppale. enseignement boobu la ci tiré wane ni Sénégal bi yëpp benn la te vraiment ma ngi félicité waat encore Chor assistance médicale ak suñu grand frère yi nga xamni ay privé lañ privé su amé férié di nga fay sa personnel su amee jour ouvrable di nga fay sa personnel mais ñom malgré le fait que ñu nek privé dañu bayyi li ñuy def ñëw pour jappalé askan wi c'est à saluer. depuis ba ma fi nekkee ba léegi en 2009 année bu nekk docteur Ndiaye vraiment dañ koy remercier parce que taxawaayam dafa rafet taxawaay la boo xam ni day jàppale xale yi nga xam ni amuñu ay moyens li ñuy wax ay talibé di leen faj di leen jongal di leen jox ay médicaments loolu dafa nekk acte acte boo xam ni acte noble la donc moo tax dañ ko bëgg a dig remercier ko ci loolu ñun nag suñu participation moo doon ñu jox ko lycée Malick Sy fu mu neex mu defee ko fa parce que lycée Malick Sy lycée la boo xam ni mooy premier lycée de la région cadre yu bëri jaar nañ fi donc ñun dañu am chance yàlla may ñu ñu nekk si bopp lycée bi mais lycée bi lycée wu région Thiès la ñun Sénégal sax laay wax parce que ñun dañu dañuy dimbale pour lu développer cees ñun mooy suñ suñ suñ suñu activité. donc képp koo xam ne mën ngeen jàppale si loolu rek dañ lay si jàppale ñun moo tax ñun jàppale docteur Ndiaye si liggéey bii muy def liggéey bu rafet bi muy def di dimbale ay taalibe yi di leen faj di leen jongal. di top man xamna naa lu bare parce que depuis 2009 maa ngi fi chaque année man maa koy jox fi ren nag dañ koy def dama ci contane parce que dañ koy def ci bâtiment bo xam fondation Sonatel mo ñu ko defaral donc man len da ngay ñew mu jox leen bâtiment bi nga xam fondation Sonatel défal nako parce que vraiment amna na accueil la am na accueil bu baax loolu tax ma indi len ci bâtiment bi. profité aussi pour wax len ni len ñun amna ñu activité bo xam aussi dañ koy def le 12 mai bo xam dañuy sargal serigne Abdou si Abdou Abdou si Al Amin.

ñu profité aussi pour ñaan ñu nga xam ne jaar nañ ci lycée bi ku nekk loo mën dimbaloo di dimbale nga dimbale ko lycée pour ñu équiper suñu infirmerie équiper salle informatique bi équiper labo yi. loolu le 12 mai lañ ko bugg def day am benn cérémonie boo xam ne day appel à contribution boo xam ne dañ ko bëgg def on est tenté ñu ngi seet ndax dañ ko mën def en direct à la rajo suñu ko mënee am xayrul suñ ko mën am aussi ku nekk rek loo mën nga joxe ko pour ñu jàppale lycée pour ñu eggalee liggéey bi

depuis ba mu amee ba mu nekkee ba léegi ñoom fii lañ koy defee te ñun aussi vraiment da leen di ñaanal pour que loolu continuer. 15e édition 15e édition man ne depuis 2009 maa fi 9 ans yow depuis boobu maa ngi fi donc xam naa ne depuis 2009 9 ans yi fekkee naa ko def naa ko dama leen di ñaanal pour que loolu continuer parce que li ngeen def jaamu yàlla la. te jaamu yàlla moom boo koy def moom bul séentu fayu nit séentul fayu yàlla te fayu yàlla moo ëpp. loolu leen di waaw loolu ñun dañ ci sant yàlla bu baax ndax nit lu ngeen ànd di ko def fukki at ak juróom yaakaar na ni dëgg la su dul woon dëgg kon yàqu na bu yàgg euh, loolu ñu ci sant yàlla bu baax ci accompagnement bi nga xam ne ñoom ñi nga xam ne ñooy suñuy nawle parce que ànd gor ak nawle lañ ànd ak ñoom depuis fukki at ak juróom ñuy liggéey ci ci lu mel nii jëmee ko ci ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi nga xam ne ñoom lañ yaakaar ne ñoom ñoo war a taawu réew mi ëllëg ngir saytu seen wér-gi-yaram ngir def ñoom li nga xam ne mooy lii ñuy def ak ñoom consultation bi yaakaar naa ne ñun ñëpp kenn ku ci ne muy sëñ daara ki dul sëñ daara ki képp koo xam ne am nga doom rek ñu koy wax xale yow da ci war a sant yàlla bu baax a baax a baax a baax ndax xale yi nekk ci daara yi ci kër yi lañ jógee tabaarakallah avant ñuy nekk ndongo daara ay xale lañ woon li ci suñu taxawaay mooy li gën a jafe mooy loolu li gën a jafe mooy monté mutuelle bi d'abord loolu moo gën jafe moo gënoon jafe mais nañ ko li ci des nag mutaabaara lu suivi la suivi bi ñu ngi ci des daara yombul de organiser ko ci population sax yombul asuma la daara mi nga xam ay moyens dafa dafa limité dafa soxé daara mi nga pour mu cotiser weer wu ne wax wax dëgg yàlla cotiser ndongo daara a mais solution ñu nous Ndiaye am ci ay xalaat ay xalaat comme couverture maladie universelle bëgg na ñu ñu dugal ci seen loxo bu baax a baax a baax nga xam ne ndongo daara bi jafe-jafeem waratul doon faju fii ci Sénégal wax dëgg yàlla ak programme yi nga xam ne état du Sénégal am na ko ci ci ci enseignement religieuse yaakaar naa ne ndongo daara bi pour mu faju fii ci Sénégal waratul am jafe-jafe mais jafe-jafe yi ñu ngi koy am ba léegi tabaarakallaa jàpp nañ ne waxtaan yi nga xam ne sumb nañ ko ak ñoom suñ ko continuer incha allahu taala jàpp nañ ne solution dina ci am